c'est Amadou Nying, chargé des relation extérieures et du marketing politique du mouvement maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp su ma jógee si loolu. en fait comme li nga sama camarade bi waxee rek ndaje beeg taskatu xibaar yi fii tey li ko waraloon si ñetti point si ñetti ponk la tënku ponk bu njëkk mooy di rappeler askan wi rek ambition bi le président mag Sall am pour réew mi quoi di ko féliciter si tamit. li nga xamante ne tey mi ngi am mooy que ni mouvement yu bees yi nga xam ne ñu ngi juddu les mouvements de soutien yi nga xam ne tey lépp suñu di ñëw si dans le cadre di yokk les rangs du parti ak coalition bi nekk. tamit bu jógee si loolu ñu ngi koy encouragé tamit pour liggéey bu rafet bi nga koy def si yenn domaines yi surtout sur le économique ñu gis tamit yokkute yi am sur le plan social lépp loolu tamit ñu koy encouragé le président kenn tamit liggéey bi foofu la franchement peut-être ñi xamul nag ñi ngi wax. mais sénégalais yi ñi nga xam ne ñu ubbi seen bëri di gis ñi ngi gis tamit liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def pour tënku rek ñaareelu poñ tamit mi ngi concerné le cas de Sonko problème bi nga xamante question bi nga xamante tey peut-être ñu ngi koy wax ñu ngi koy wax opposition bi ñu ngi génn ci médias yi di wax te tamit foog ñu fàttali nit ñi ni ce n'est pas la première fois la première fois fi rajo fonctionnaire comme ni nga rajo moom avant moom muy ñëw amoon ay fonctionnaires yu bëri bëri tey képp ku ci jógoon pour violer la loi pour nekk. benn danger devant l'État tamit dañ lay sanctionner kon donc sanction boobu ñu jarul sañ ci wax kenn tamit on a le président l'a sanctionné en du et bonnement forme bu ñu jógee si loolu tamit ñu ngi rappelé tamit ñetteelu ponk bi mooy que ni tey ici à Thiès situation politique Thiès tey tey li am Thiès tey amul si benn dëkk boo xoolee tey en ce qui concerne on tend vers des élections ñu que ni les hauts conseils que les le conseil des collectivités au conseil le haut conseil des collectivités territoriales tey li am Thiès tey amul fenn parce boo xoolee waa Thiès ñoom seen biir su la direction de du ministre Augustin Tine en tant le coordonnateur du du parti à Thiès tey ñoom seen biir ñoom investir nañ seen i investiture te xéeroowuñu ŋaayoowuñu tamit poñ bi mujj mooy tamit foog ñu fàttali li waral tamit dëgg-dëgg suñu ndaje bi quoi mooy que classe. ak quelqu'un ki nga xam ne moom benn mouvement de soutien la yor muy le président Babacar Pascal Ndione moom tey li muy def nii président loolu la soxla parce que à un moment donné gis nañ ne président tey yaakaarul si parti bi kese kese il a besoin des mouvements de soutien yi nga xam ne tey dañuy ñëw pour dooleel Macky kon donc tey moom liggéey bi muy def à travers ce point de presse ñi ngi koy rafetlu kenn tey président tey loolu la soxla te tamit le maire lépp li nga xamante ne président président dañ si woo si loolu da nga si wuy si comme tey moom ni mu jógee tamit tey beneen autorité bu jógoon tamit ne carrément si li la ñuy woo ñu ne ko si fekk si ñett poñ yooyu daal tey moo waroon suñu daje ñu nag les points de presse Sonko Sonko sama sama gis bu gàtt ak ñun suñu gis-gis bu gàtt au nom du maire Sonko en tant que fonctionnaire moom en tant que fonctionnaire dafa ñëw divulguer ay information yi nga xamante ni administration bi mu nekk may ko ko parce que tamit président rajo bu ko parce que c'est une tête qui gère un parti si loolu tey ndax ñu rajo ko moo gën fonctionnaire boo xam ne daa am lu ko état dénk loolu noonu moo doon si abstenir war nañu am si loolu recette politique nag da koy mettre à part il a violé la loi donc il n'a il ne doit subir une sanction